xamal ko ni ko moom de dama amul lu may moom te fee mu ne kër ga ràpp na sama néeg ba ràpp na sama lam yi ma amoon sama càmmiñ jël na ko tayle ko ngir soxla te amut lu mu ko jëlee ma bëggoon nag ndagam moom rek laa am nga yeewi ko ngir mu ñëw ci kër gi bi soxna si waxee li mu wax ba dem borom daaru mu ci woo jëmm joojee ba mu ñëw mu ni ko sa wajuru jigéen day ñëw na fi am na lu mu ma wax bëgg ma bàyyi la ngir nga dellu ci kër ga waaye àndaar yi dugub day muy pepp soo bëggee mu sakkan doo ko soq da koy ji buñ ci tegee ab diir jëmm joojee borom daaru muxti boole ko ak mbooloo ñu dem ca kër juróom waxuma la yeesal néeg ba waaye sàkket kër ga defaraat ko ba mu yees ñu takkal ko ab néeg bu rafet dellu siwaat ñu toog ab diir borom daarul moxti joxaat ko ab lim ni ko boo demee sa waajuru jigéen jox ko ko ngir lamam yooyee càmmiñam la tayle woon mu man ko jot kon jëmu joojee su fekkonte ni way juróomu jigéen da ko yóbbu loolu mooy am àndaari pepp soq ndax kon bu demee moom dong du mën a yeesal kër ga du mën a jot itam lam yooyu nga xamante ni lami waa juróoma te ñu taylewaat ko jëbu joji itam nekkoon naag dong ya ca daara ja liggéey ba sooxe mu mel ni dañ koo seetaan mu mer ñëw fekk borom daaru muuti koso wax ko aw nemmatam borom daaru muuti di ko loolee day du dara demal rek te boo demee nga def li nga man ndax gaynde day mu nekk ca marché ba ak mu nekk ca dédd ga wéet du tee mu doon la doon ba dem borom daaru muuti wowaat ko mu ñëw mu ni ko soo demee na nga góorgóorlu def la nga man ndax nit ki day mënees na koo nax ba liggéey loo ko waaye mëneesu koo nax ba lekk jëfam wala aw ñaqam loolu bokk na ci li borom daaru muuti daan wax ak taalibe yi amdan لا يعلم